wàccaay bi nag comme ni nga ko waxee xam naa ni ñi ngi ci cëppaandaw bi parce que processus la élection mais bis bi ñu jëm suba dafa nekk étape bu am solo ci processus boobu waaye nag lu ko jiitu scrutin suba bi dafa am lu ko jiitu mu nekk étape yu bari lu jëm ci wàllum wàccaay depuis révision exceptionnelle ba ba ñuy mettre en place commission administrative distribution carte ba matériel électoral bi di ñëw bañ koy dispatché bañ koy conditionné bañ koy yóbbu ci lieu de vote yeeg bureau de vote yi xam nga loolu lu gudd la waaye nag administration centrale comme administration territoriale aussi xam euh, lan mooy élection xam également euh, jafe-jafe yeeg ak euh, yoon bi ni mu ni mu soree moo tax ñu teel a jóg ba tax na nii may waxee gi yéen nii amut lenn loo xam ne nii des na lu jëm ci wàllum document wala matériel électoral bu waroon a ñëw ci département bi li waroon ñëw en terme de document et de de de de de, de matériel électoral lépp agsi na à temps bi mu ñëwee également lépp dañ ko centraliser euh, préfecture woosu sous préfet yi kenn ku nekk ñëw enlever la nga ca am alors biñ ko enlever aussi def nañ li ñuy tuddee conditionnement maanaam matériel bi li war a andi yépp ñu am fu ñu ko boole pour mën ko yóbbu ci lieu de vote yi ak euh, ak ci bureau de vote yi donc nii may waxee ak yéen ñi daal sant yàlla. amul fenn foo xam ne nii signalé nañ ñu fa ni am na bulletin bu manqué wala am na stylo bu manqué wala am na wala wala wala donc vraiment sant yàlla bi ñu teelee jóg ba fi mu nekk nii macha allah alors ñi ngi waajal sereinement scrutin bu bu suba bi. dëgg la euh, département Thiès moom jàpp naa ni Sénégal à part Dakar peut-être ak Touba xañ na li ñi ko ëppale population électorale defe naa ni amul. Euh, boo ko seetloo dëgg ci département bi yëpp am nañu trois cent quatre vingt mille sept cent quatre vingt dix huit électeurs ñooñu ñu ngi leen di tas ci deux cent quatre vingt onze lieu de vote lieu de vote boo ko déggee mooy béréb boo xam ne nii bureau yu baree fay daje. alors ñooñu dinañ leen tas également ci sept cent quatre vingt treize bureau de vote loolu moom moo nga xam ni mooy nombre de bureau de vote ci euh, cinq arrondissement yi yi nga xam ni moo am Thiès ak ñaari communes yi nga xam ni dañ ko rattaché. Euh, préfecture muy euh, commune bu Pout ak commune bu commune bu Xombol. waa mooy ni ma la ko waxee rek administration centrale ministère de l'intérieur ak administration territoriale ñoom ñooy yayoo organiser élection waaye dafa am luy con ñuy contrôler processus bi di contrôler le respect des dispositions du code électoral muy waa waa Sénat ñi ngi ci ñoom it ñi ngi bay seen waar Euh, fépp fu ñu war a teg seen bët ña ngi ko fay teg ñu it lépp loo xam ne ni document la ñu war ko séddoog ñoom alors ñi ngi koy séddoog ñoom lépp loo xam ni balaa ñu koy def yoon dafa wax ni dañ leen ko war a yëgal wala ñu wan leen ko également ñi ngi jaar ci ci yoon boobu alors wàllum euh, sécurisation parce que évidemment kenn mënul wax euh, vote te waxoo également sécurisation des des lieux de vote mais également des électeurs loolu aussi vraiment disposition yi ñu ci waroon jël yëpp jël nañ ko loolu mi ngi concerner la police mi ngi concerné gendarmerie mi ngi concerné égal également armée parce que armée aussi day ñëw ci wetu police ak gendarmerie pour mën a ndar képp vraiment euh, le le le territoire euh, départemental. donc euh, boo xoolee police moom la ñuy déployer dans la ville de Thiès moom mooy zone de prédilection dina fa am ay bureau de vote yu mu fa war a sàmm lu tolloo ci 57 gendarmerie également moom dafay génn mais mi ngi marquer sa présence. ci chef lieu de commune yi au niveau des arrondissements alors li nga xam ni nag euh, moo ci des maanaam li liñ daan tuddee le millier rural ci village yeeg yooyu foofu armée moom moo fay moo fay déployé wu. donc gendarmerie boo xoolee ci ab lim ci li mu war a tenir en terme de lieu de vote toll na ci ay 32 armée moom dina féetewoo lu tolloog 202 lieux de vote boo ko calculer donc mooy 291 lieux de vote yi ñu leen waxoon sànq. art yi nag quand il faut dire que xaw na des tuuti parce que ñun boo boolee li nga xam ni stocku euh, refonte bi la woon bu 2017 ba nga boole kook révision électorale bi nga xam moom lañ defoon ci locales yi en 2021 ak dernière révision révision bu 2022 lépp da lay jox 18 766 cartes alors ci 18 18 766 cartes yooyu alors distribué nañ ci 7 546 kon day daal di des 11 220 alors loolu Euh, mooy li nga xam ni globalement mais bu fekkee ne da nga ciblé euh, nombre de cartes yi nga xam ni moom la révision exceptionnelle bi généré loolu mi ngi tool ci onze mille sept cent dix huit bu deux mille vingt deux boobu distribué nañ ba mu des quatre mille quatre cent trente xam nga donc daf ñuy jox pourcentage yu soixante deux pour cent bon foofu vraiment ñi mujj bindu moom am nañ farlu alors pour pour pour ñëw retirer mais la ko jiitu wax dëgg yàlla. alors euh, ñooñu ñoom ñi ngi ñi ngi traîner ba léegi mais nag bon ba tey ñi ngi am yaakaar que ni fii ak minuit comme la plupart des sénégalais alors euh, ñoom dernière minute la espérons que dernière minute dernières heures yi alors dinañ toute affaire cessante ñëw pour en tout cas retirer seen seen carte yaakaar nañ ko. dalal xel yëpp rek xam ni fii cees la te Thiès ñëpp ay mbokk lan bu waxtu défendre say idée jotee yëkkati kàddu jot. Thiessois xam na nu muy yëkkatee kàddoom xam na nu muy défendre ses idées mais Thiessois aussi jàpp naa ni kenn gënu ko bëgg réewam kenn gënu ko bëgg région am kenn gënu ko bëgg département donc moo tax man xel mu dal laa ciy demee campagne bi dëgg la def nañ ko vraiment dans la plus grande sérénité hein dans la plus grande convivialité même j'allais dire parce que maa ngi koy fàttali léegi euh, je pense que loolu yëpp ñëpp gis ngeen ko am na fi ñaari coalition yu daje ci benn sele bi yoon alors ñëpp peut-être foogoon nañu ne ay waxante yu ñaaw et cetera mais dañoo bett ñëpp ci mbégte ni ñu wàccee saafonte échangeante polites et cetera ma xam ni donc loolu fondamentalement mooy la Thiès waa moo tax awma ci benn benn benn tiitaange alors euh, jàpp naa ni daal incha allah demain euh, jour de vote lay doon euh, mais jour de fête lay doon incha allah. effectivement waaw ouais, parce que élection yu ñuy def ci nawet la quand te wax naa ko sànq ci département boo ko limee am na fi lu tolloog 38 abris provisoires alors xam ni ñi ngi dem ci élection xamit également que ni élection yi ci nawet la jëm moo tax évidemment administration centrale tel na mobiliser les moyens vraiment pour que ñu mën a ériger lépp loo xam ne nii moo jëm ci wàllum abri provisoire yooyu donc moo tax ba fii may waxee ak nii alors 38 provisoires yi nga xam ni war nañ ko ériger dans les arrondissements les cinq arrondissements muy Nooto Kër Moussa euh, Thiénaba Thiès Nord Thiès Sud ñëpp kenn ku ci ne li nga am ci lim alors commencé nga ko ba alxames normalement ñëpp waroon nañu waroon nañu pare.